salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen sport 221 yi nga xamante ne Sénégal koy waajal muy seen diggante ak Eswatini wala boo Congo amaan na ki nga xamante ne mooy Ismaïla Sarr du ci bokk ndax moom kat dafa am blessure ci li nga xamante ne mooy ci pooj bi ci match bi nga xamante ni Watford amoon nañu ko ci talaata ji seen diggante ak Rotherham moom ki nga xamante ni mooy Ismaila Sarr sa marqué woon benn bii ci match boobu waaye nag ñu teeloon ko génne ci deuxième mi bi ndax kat dafa am gaañu gaañu loolu waral sax ba tey ji match bi nga xamante ne Watford amoon nañu ko seen diggante ak Birmingham City moom ki nga xamante ne mooy Ismaila Sarr sax bokkut ci maanaam teewul ci jongante googule mooy wéral ne rek ki nga xamante ne mooy Ismail Sarr kon moom wéragul ci li nga xamante ne mooy gaañu gaañu boobule loolu nag mën na tax ba du mën a bokk ci jogante yi nga ni Sénégal waajal seen diggante ak Congo wala Eswatini ci fàttali Ismail Sarr dugal na lu toll ci 9 bi ci depuis saison bi tàmbali ak léegi ci 33 match yi nga xamante ne joué na ko ak Watford. ci kaw loolu ki nga xamante ne mooy Aliou Cissé di sélectionneur national mu ngi mu ngi wéy di ut ay renfort ci match yi nga xamante ne Sénégal koy waajal bokk na ci renfort yooyu la ki nga xamante ne mooy Mamadou Fall di évolué ci foofu la ca Belgique ci club bi nga xamante ne mooy Charleroi moom kayiti xibaar yi fesal nañu ne jot na convocation bu njëkk ci équipe nationale bu Sénégal waaye retour ki nga xamante ne mooy Mamadou Loum Ndiaye ak FC Porto Mamadou Loum Ndiaye itam bokk na ci renfort yi bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi ak ki nga xamante ni mooy gardien wu jaraaf bi nga xamante ni mooy Pape Seydou Ndiaye nga xamante ni moom yàgg na am convocation ak équipe nationale bu Sénégal waaye itam Assane Diosé assan Diosé nekk foofu la ca Turquie ci club bi nga xamante ni mooy Ankara Jucu waaye itam ki nga xamante ni moom la ñuy wax El Hadji Madické Kane El Hadji Madické Kane moom itam di évolué foofu la ca Jaraaf nekk joueur bi nga xamante ne mos nañu en 2018 la woon ci match yi nga xamante ne Sénégal mu ngi koy waajal ak Soudan waaye nag ci absence yi nga xamante ne mooy ku mel ni Kalidou Koulibaly teewatoon ci jogante yooyu la ak Lamine Gassama wala Salif Sané moom El Hadji Madické Kane amoon na convocation bu njëkk entraîné woon na bokk ak ñi nga xamante ne di équipe nationale bu Sénégal moom itam buñ sukkandikoo ci këyiti xibaar yi ak Pape Seydou Ndiaye bokk na ci renfort yi nga xamante ne Aliou Cissé convoqué beneen xibaar bi nga xamante ni jàpp nañu ne ci suba ba léegi mu ngi wër kayiti xibaar yi mooy nag ne mooy charte yi nga xamante ne tegoon nañu ko ci joueurs yi nga xamante ni dëkkuñu a joué ci ñu yooyu la joueurs nañu dem joué ji teg yeneen i conditions yi nga xamante ni amaan na yenn ci ay réew ci Afrique na du jàppandi ci ñoom ngir ñu mën a wéyee condition yooyu la bokk na ci kat képp koo xamante ni dem nga joué ji ak sa équipe nationale booy dellu du dugg ci avion yi nga xamante ne ci la ñëpp di dugg di dem ci France waaye dañ lay jëlal boog jet privé jet privé ngi lañ lay jëlal ngir nga mën a dellu joueur ji ak sa club waaye nag boo delloo kenn du la quarantaine leneen li nga xamante ni itam bokk na ci condition yi mooy joueur bu delloo ba juróom-ñaari fan yi mat chaque jours dinañu ko test la ñu tuddee PCR mooy test yooyu nga xamante dañuy càmbar sa wér-gu-yaram ba juróom-ñaari fan yi mat waaye daal di nga mën a continuer di entraîner ak sa club wala bokk ngay jouer te kenn du la quarantaine sarte comme ni leen ko waxee mooy test PCR bi nga xamante ne dina ko jël 7 jours beneen bi mooy jet privé bi nga xamante ni amaan na mooy nekk problème bi ci yenn ci ay dëkk ci Afrique ngeen ñu war a mën a jëlal seeni joueur ay jet privé ngir ñu war a mën a delluwaat France bu ñu joué ba pare. dañu koy jeexalee rek ak Lions yi nga xamante ne ràññee nañ leen ci weekend bi bokk na ci ki nga xamante ne mooy Chérif Ndiaye Chérif Ndiaye moom dal dina marqué li nga xamante ne mooy neuvième biam de la saison Chérif Ndiaye marqué na son neuvième bi de la saison ak club bi nga xamante ne mooy Gostepé donte ne dañoo ñàkk nag dañ leen dal di dóor ndax Sifa Sport daf leen dóor 5 bis à waaye Chérif Ndiaye moom moom daal dinay dugal benn bal ci jongante yooyu la ki nga xamante ni nag mooy Sofiane Diop moom démb mu daal di dugal bii bu rëy ak club bi di AS Monaco mu marqué li nga xamante ni mooy septième biom ci li nga xamante ni mooy saison bi ak Ligue 1 bi ci xamante ni mooy AS Monaco ñoom dañoo daal di dur AS Saint-Étienne bu ki nga mooy Pape Abou Cissé moo marqué benn bi ki nga xamante ne mooy Krépin Diatta moom itam daal di dugg ci deuxième mi-temps bi premier ballon bi mu njëkk am rek mu daal di koy taal moom kii di Krépin Diatta marqué son premier bi euh, ak club bi nga xamante ni mooy AS Monaco jamono yi sax moom Krépin Diatta moo nekk centième euh, buteur sénégalais ci li nga xamante ne mooy Ligue 1 française démb moom Krépin Diatta dal di débloqué li nga xamante ne mooy compteur biom ak club bi nga xamante ni mooy AS Monaco.